notre consultante wax na arbitre baa ngi a sifflé arbitre bi sifflé na tey samedi 3 mai 2009 stade Demba Diop Moustapha Gueye le tigre de Fass Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye Moustapha mi gi dox ci kaw Balla mi ngi jiital tànku ndeyjoor Balla mi ngi jiital tànku càmmoñ Balla Moustapha ñi ngi lewtoo Moustapha dafa bëgg dox ci kaw Balla Ibrahima doon wax combat bu gaaw Moustapha door na Balla reculé na Moustapha daw na jël na ko Balla jël na ko jënd nañu saako yi arbitre bi woowaat na leen. Moustapha. waaw Moustapha déclenché hostilité yi. waaw foog mu jéem a li ma la waxoon rek foog mu jéem a xeex mooy am buntu bi su xeexul du am buntu bi foog mu xeex. arbitre bi sifflé waat na. xeex rek. Moustapha Gueye. Moustapha moo njëkk a déclenché hostilité yi moo xeex moo songu ñu dem ca saaku ya ndax loolu stratégie la bu Balla Gaye doo lal wala boog lan moo nar a am bu ci kanamee nañ ci xam dara Moustapha Gueye Balla Gaye doo Balla Gaye gëdd na ko ma ngi koy gëdd Moustapha door na Balla jël na ko xar na ko war na ko ndombo gis nga ko dafa dóor xale bi juwaloo ak moom daw takk ko wër ko ndombo jàpp bu dëgër tuur ko daan ko jël bu set wecc Birahim yaakaar naa ni combat bi buñ ko analyser dans un premier temps. Hmm. xale bi dafa taxaw déglu Moustapha. voilà voilà Moustapha dóor mu moytu. xam nga Moussa dafa jiital pied droit pare lancer crochet droit crochet droit saa yu jógee waa ji bëtt la loolu la Kayre Kayre noonu la la daane Zallo. doo sa tànk du teg kii pied gauche kii pied droit la seen ñaar tànk dañuy jege ji crochet bi